xam sa démb xam sa tey xam xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaanee Aline Sitoé Diatta doomi Sénégal ji juddoo Kabrousse 1920 fële ca Casamance ca département Oussouye la boo koy topp yaa ngi ci biir Casamance Aline Sitoé bi muy doon xale bu ndaw ca la ne kenn du ko yor day jóg wuti liggéey ndax moom njabootam rekk ko ñor ca noona la muy doon doon xale bu jigéen dafa dem ca poor ba nekk Ziguinchor wuti liggéey di baare ñit ni ak yenu nekk fa dokeer Aline Sitoé Diatta ci gannaaw loola sax ci la ñëw Dakar waaye ba mu ñëwee Ndakaaru dafa bindu mbindaan ngir am lu mu yóbbu këram lu mu yore ay waajuram ci dakaar googu bi mu fi nekkee fi la àddunaam soppi ko ndax fi la am lu ko feeñu 1941 wax ko li mu war a def wax ko ki mu war a doon wax ko fi mu war a dem mu daal ne wëriñ wàññeeku dem Casamance waaye ba mu demee Casamance dafa bàyyi lépp toog rek dëkkee ñaan ngir ndox mi bëri di ñaan ngir mu taw muy ñaan di ñaan ba ñaan nga siiw gox bépp yëg ne am na boroom xam-xam bu jigéen ku yàlla feeñu baaxu ko ku ñëw Aline Sitoé Diatta fu la la nit jógee ñëw di ko siyaare si gox ba mu dëkk di Mosor ca Kabrous fes dell nit ñi ñëw di ko seet yàlla dogal ca nawet booba lanu góob ci ceeb ak na nawet ba bëree ndox tax na ba ñépp nangu ne kii am na lu ne ci moom looloo tax bu nuy seetlu 1942 taw bi ni mu bëree ak ngóobum ceeb ma na nangoo nit ñi nag ne ñaanam gi moo nangu keroog nag ñi xel ñaar sax nangu nañ ne alin mii am na lu ne ci moom ay ñaanam ak bu daan jàkkaarloo nit ñi di leen wax li war a def ak ni war a bañee tax na nit ñi ñëpp wóolu ko Aline Sitoé Diatta dugg na ci xolu nit ñi. looloo tax nag bi nga xamee na moom nit ñi jiital nañ ko di ko déglu dafa taseeg waa Casamance di bañ lépp lu leen tubaab bi sant. lépp lu leen tubaab bi teg te tegu ko ci yoon ñu bañ ba tax 1942 nguurug tubaab bi bayulu dara dara dara Casamance mayu ñu leen jàmm bi nga xamee dem nañ bay wut ay soldaar ay jàmbaar yoo xam ne danoo waroon a fekk soldaar tubaab yi ci ñaareelu guerre bi nga xam ne àdduna bépp ko séqoon nit ñi faale wuñ leen bi nu wëree it dund bu ñu yóbbu ngir soldat si xeexee ko nit ñi faale wuñ leen ñu ne dañuy jéem a jël impôt nit ñi faale leen fu nu laaj galak kenn du leen faale ñu ne dañuy wër ngir di ñekk nit ñi waa Casamance kenn faalewu leen bu nguuru tubaab gi woote ne kaay leen ngeen defar yi kaay leen ngeen dagg garab yi te kenn du leen fay dara waa Casamance ne duñ ko def nguuru tubaab gi nag seetlu ne li ni ñu daan nangu ñu ngi koy bañ. mu daal di jàpp nag ne kon Aline Sitoé Diatta mii ñëw moom moo dugg ci seen xel yi kon nag bis ne tey ñun tubaab yi dinañ takku ci soreele ko ay mbokkam ndax moom mi ngi yàq seen xel loolu moo tax tubaab bi daal di takki pexe bàyyiwul dara ndax xamoon na ne lenn rek la mënoon a def ngir siiw bi mu siiw bëgg bi ko nit ñi bëgg ak ni nga xamee ne moom la leen di jiitee dakk lenn rek la tubaab bi mënoon a def mooy tàqale kooki mbokkam kon nag tubaab bi France liñ bëggoon leer na li mu namoon leer na ndax jàmbaari France yi fi ne woon leen rek lañ leen yónni woon mooy nanu fexe ba képp kuy nit ku ñuul di sénégalais dëkk Casamance maa ngi dëkk feneen ñu noot la kon nag dogal yi jógee France dañ cee war a ànd ñoom ñëpp ñu ne kon dañoo war a jàpp képp koo xam ne da bañ te képp koo xam ne danga bëgg a yëkkati nit ñi ngir ñu dal ci nguur gi ngir ñu bañ a li nguur gi nangu yow dan laa war a teg ay dóor ak i daan lieutenant colonel bii di Sajou nga xam ne moo doon commandant de cercle Ziguinchor woo ay nitam ñu tëju cib néeg teg ay pexe ne nag li ñu bëgg mooy xoqatal nit ñi ba ragal ba kenn ci ñoom dootu ñemee fippu noona la bettee waa Kabrous ànd ak ay soldaaram dem dal ci seen kaw daal di jàpp nit ñi daal di leen di toroxal daal di leen di soxore ñii ñu xor ñooñal ñii ñu gaañu Aline Sitoé ak ñi ko jege moom ak i mbokkam 29 janvier 1943 lañ leen jàpp jëkkëram ay waa këram ak ñi ko bëgg. ñu yóbbu leen tëj leen ndar ñii ñu tëj maatam ñii ñu tëj Podor Aline Sitoé Diatta nag yamuñu ci loolu ndax fukki fan ak juróom ci weeru juin 1943 lan ko àtte gouverneur général daal di bind aw këyit ne tëj nañ ko fukki ati kaso tëj ko ràpp nag ana fuñ ko tëj kaay lañ ko tëj kaay fu mu nekkoon Soudan français bi tudd Mali tey waaye ñaari weer rek la fa toog ñu daal di koy jàllale tombuktu ndax booba xam nañ ne kasob Tombouctou moo gën a métti kasob dëkk ba dund ga dafa gën a bon ca biir camp booba nag fa lañ ko tëj tëj boo xam ne du gis kenn du jokkoo kenn di ko jox lekk gu bon lekk gu du bat lekk gu du ñor lekk gu du baax lekk gi du set Aline Sitoé jafe-jafe bu ne mu dund ko ca kasob Tombouctou tuba loola moo tax wér-gu-yaramam daal di yàqu ay wopp di ko dugg ba mu ca wopp ju doy waar ju tubaab tuddee scorbut nga xam ne ferñeent yi nekk ci sa yaram ñoom ñooy jeex loola jàpp ko jàpp ko jàpp ko ba amatul kàttan amatul doole waaye mu nekk ci ngorom rek di xeex ak wopp ji ay weeri weer Aline Sitoé di xeex ak wopp ji ba mujj mu faatu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai 1944. waaye gis ngeen de ba mu génnee àdduna Aline Sitoé Diatta nguurub tubaab gi def ne bu kenn yëg ne ñi ngi koy suul nan ko suul te bu ko kenn yëg ceeb armeel boo xam ne mi ngi Tombouctou ndax bu ko kenn suul senegal nit ñi du xam fu bàmmeel ba ne di ñëw di ko siyaare nguurub tubaab bi nga xam ne lim mu bëggoon mooy Aline Sitoé Diatta sori ay mbokkam suul ko Tombouctou rek la mënoon a def ngir ay nitam dun dem di ko siyaare ji waaye Aline Sitoé giskat bi mag bi Aline Sitoé giskat bu mag bi génnee nañ ko yóbbu ko gàddaay rey nañ ko ay mbokkam ñu yeew leen ba ñemeetu noo wax ndax booba tubaab bi yaakaaroon na ne bëgg gi ko nit ñi bëgg dana seey ci seeni xol waaye mooy de tubaab bi juum na ndax Aline Sitoé Diatta keroog bañ ko génnee la ko waa Casamance gën a bëgg keroog bañ ko tëjee lañ ko gën a sopp keroog bañ ko rayee lañ ko gën a jege waaye gis ngeen moom Aline Sitoé jaata da leen daan wax ne yàgg-yàgg tubaab bi dana dem ndeke booba moom gis na lépp xam na ne Sénégal dana moom boppam ca Kabrousse la ko daan waxe Aline Sitoé Diatta mooma askan wi mosu ñoo noppee di ko bëgg keroog bañ ko génnee yóbbu ko lan ko gën a bëgg waaye mosu ñoo toog it te laaju ñu ñu delloosi ko bañ ko yóbboo dañ ne nañ ko delloosi bañ ko tëjee ñu ne nañ ko delloosi waaye Aline Sitoé Diatta dafa jógee nag ci nekk kuy seet. ak a gis ba nit ñi seen biiru xol ñu fal ko lingeer muy lingeeru xol yi Aline Sitoé Diatta kon tey mën na noo jàpp ne bañkat yu mag yi ne woon ci réew mi doon xeex ak tubaab bi te nu mën leen a jàppee mandarga yi ñiy bañ moom kenn jiituwu ko ci kii mooy jàmbaar ju mag ji kii mooy jigéen ji man góor kii mooy jigéen ji loolu wax ne bu ma doonoon góor def kii mooy Aline Sitoé Diatta teel a juddu teel a màgg teel a xam boppam teela liggéey teel a delloo ci aw askanam ci mbayum ceeb waaye nag teel a bañ tubaab bi noot ko Aline Sitoé Diatta kenn ku ne amal na ko njukkal moo tax xam sa démb xam sa tey doon ko delloo tey njukkal. xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen may. ànd ci ak Archives national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Institut